président chef de parti muy son excellence le président Macky Sall. Mhm. di nuyu sama coordonnateur Mamadou Diop sama responsable des femmes Sophie Ndiaye si les responsables yu ci mel ni ñoom maire Awa Ndiaye maa ngi nuyu ñëpp ah. Mhm. nuyu waa Jidda Thiaroye Kaw yëpp. di nuyu responsable des cadres di nuyu aussi jeunesse Jidda Thiaroye Kaw yëpp. Mhm. kañ la dugg affaire. Euh, luñ mën naa wax ne APR bébé la boo xamante ne ñun ñoo ko teg mhm. donc euh, je me rappelle des réunions yi nga xamante ne ñoo ngi ko doon amal en 2009 Parcelles Assainies mhm. avec le ministre d'État Mbaye Ndiaye mhm. euh, ñu jóge fa ñëw fii on a monté notre cellule en bi euh, ànd ci ak ñoom maire Awa Ndiaye ak ñoom Maman ñoom Mamadou donc euh, mën nañu wax ne APR suñu suñu bébé la. on l'a vu naître on a on l'a vu grandir on l'a tété ici dans la commune. Mm-hmm. donc ba tey jii nii. ñu mm-hmm. nga dugg APR. Mm-hmm. Euh, Pape dugg nag ci parce que coolu coolu yow la. da nga xëy def benn poste nga ni quand le ministre Abdoulaye Daouda Diallo finance les instructeurs du président de la République ñi woo yëpp dëkk bi yëpp ci loolu lañ ma doon wooye. coow li bëri ci réseaux sociaux nga soo nekkee ci mbir. Mm-hmm. da nangoo am kilifa. Mm-hmm. soo amul kilifa rek. Mm-hmm. jëne di doon si kilifa. yàlla dafa def ni depuis que ñu génnee annonce bi hier. je ne cesse de recevoir d' et de messages du haut. ku si nekk di ma wax ne ma euh, bul def émission bi mm-hmm. je vais pas m'accentuer sur le sort de Abdoulaye Daouda Diallo mm-hmm. parce que c'est l'une des personnes mm-hmm. yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk mais li ma mënul comprendre mooy le président Macky Sall avec tout ce qu'il a fait dans ce pays là c'est nominé jàppale woon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak le président parce que moom su demee bay wax ne ubbi leen seen téléphone yi ubbi leen seen bureau yi ngeen recevoir ndawu parti chacun est libre de recevoir qui il veut on n'en disconvient pas mais le problème majeur mooy on a vu que ne ay nit dañuy mbubboo le président mm-hmm. mais du plus profond d'eux ils n'en font qu'à leur tête seeni personne rek moo leen ñor du ma cité tour parce que nit ñi ñaan nañ ma nee naa leen du ma tudd je pas cité de nom mais xam nga ce qui est pire mooy quand tu prends des gens yoo xamante ne dañuy toog ci télé bi di yàq musiba le président demain tu te retrouves ak di leen jox ay xaalis di leen corrompre c'est te pourtant ñoo ñu ngi continuer di attaquer le président dans ta contribution tu as cité des noms euh, dans ma contribution Fou Malade Massaly euh, keneen kii j'ai oublié le nom tu as cité le euh, <laughs> waaw maa ngi maa ngi d'ailleurs sànq maa ngi lire ci benn article. Mm-hmm. Euh, muy wax ne que man damay je fais du chantage pour que ministre yi di ma recevoir pour di ma jox xaalis bëgguma woon tontu Ousmane parce que nag am na loo xamante ne. Euh, xaw ma nan laa ko mën a tuddee soit c'est une pauvreté intellectuelle moo tax muy agir de la sorte peut-être intellectuellement il est pauvre parce que tu peux pas venir dans un parti en 2007 2017 autant pour moi nga créer ce mouvement un soi-disant mouvement parce que nag xam nañ li ci biir kon ba mu dëkk mënu fa génnee juróomi nit nga toog di tëkkoonteeg ak man wala nga may tontu euh, pour man nekk fii di ko tontu sax. ce serait un peu me rabaisser wala may perte sama temps ci moom parce que je pas son alter ego kooku wàllum muy na ci politique politique ba ñuy def ak politique bi ñuy def c'est différent je le rappelle que ne man je suis cadre au port autonome de Dakar d'ailleurs je profite de l'occasion pour nuyu sama directeur monsieur Aboubacar Sadikh bi di ko féliciter si l'excellent travail qu'il est en train de faire euh, man je suis cadre au port je gère tout ce qui est communication digitale je community manager kon donc su toogee naan damay soutirer ay ministre wala dara te yàlla xam na ne musuma je le dis publiquement je jamais parti voir un ministre qui que ce soit pour ne ko may ma parce que parti bi ma nekk ñëpp xam nañ sama jikko du ma sax tàllal loxo ndegam ñi ma dëkkal ñoo xamul samay problème sàkkantu ma laak un ministre wala truc ñaari ministre ñoo ma mës recevoir seen bureau c'est c'était à des buts purement professionnels je peux citer leur nom kenn ki Dame Diop la boobu j'étais parti dans le cadre du groupe d'information républicain ñu dem liggéey ak moom liggéey bu am solo bi nga xamante ne ndaw ñi ñu ngi wax affaire emploi mu génnee li nga xamante ne moom la ko président dénk wax ci li nga xamante ne moom la def beneen bi aussi c'était Omar Youm le ministre Omar Youm que je salue au passage un frère moom aussi c'était dans le même bi ñu demee en terme d' infraction en terme de transport et autres ci yooyu lañ demoon waxtaani pour que gindi askan bi ci loolu su weesoo loolu je défie quiconque j'ai pas besoin de ministre parce que yàlla def na ne nag man sama DG doy na ma mi ngi def li war ci man et hormis moom j'ai d'autres amis yoo xamante ne ay kilifa lañ ci réew mi du ñu sax xaar ma wax leen sama naxaar su ma doon xaar ci ministre pour appuyer sama waa koñ wala dara j'allais pas être je suis responsable depuis tabaski bi j'ai débloqué mes propres moyens soo paree dinaa la génneel à hauteur de un million huit cent yoo xamante ne man maa ko moomal sama bopp sama xaalisu bopp la jàppale ko sama waa koñ kon donc j'attends rien de personne absolument rien de personne mais comme li ma la wax quand on est pauvre intellectuellement c'est normal que ngay créer ay wax di ko teg léegi yow danga ne responsable APR yi jàppale ñu jeunes bon est-ce que la foot yéen jeunesse parce que jeunesse affaire itam dañ leen di séen ci réseaux sociaux yi des fois ñu def affaire yoo xam ne da ngay rey ba tas pas plus tard qu'hier gis nañ koy amoon di saagante ci réseaux sociaux yi affaire yi est-ce que gars yi nañ jox cër la jeunesse républicaine. mais euh, Lune. il faut que ngeen comprendre benn aspect. waaw parti au pouvoir ni muy doxe on se rappelle du temps de PDS. man avant de militer dans l'APR te le secrétaire général de la quatorzième coordination du PS dama doon toog toog table secrétariat exécutif u PS avec les Barthélémy Diaz ñu may dégg les Khalifa Sall et autres parce que ki ma dugal ci politique muy notre délégué de quartier Seydou Lam moom moo nekkoon le coordonnateur de la quatorzième donc parti yi fi jaar au pouvoir yëpp wax ma ban parti politique moom moo am ay ndaw yoo xamante ne fu ay ndaw tase fukk di fa feeñ te am wala leneen ak leneen coow mënul ñàkk mais le plus important ñu ñëpp xam nañ ne on a un dénominateur commun qui est le président Macky gis nañ fi mu jëlee réew mi ak fi mu ko bëgg àggale tey jii la preuve mooy fu président soxlaa dañuy gis ne ndaw ñuy jiitu. xam nga président jàppale ndaw yi. président yi mag rek le président de la république ndaw yi ils des problèmes nga xaw ko léegi mag ñi jàppale ñu ñaan mais ndaw yooyu président deful seen promotion. Euh, non man du ma wax ne. du ma wax ne le l deful la promotion de la jeunesse. tey jii wax ma ñaata direction pas plus tard que bërki démb la nommé euh, Maïssa Mahécor de Safrou c'est un jeune Thérèse Faye Diouf c'est un jeune avec qui j'ai cheminé à la Cochère euh, Tamsir Faye c'est un jeune def na leen ay DG Samba Ndiobène Ka c'est un jeune il est ministre aujourd'hui tey pourquoi ñuy wax que ne le président n'a pas fait la promotion de la jeunesse et pour rappel même si le président n'est pas seulement le président de l'APR c'est le président Sénégal tey jii réew mi moom lañ ko dénk c'est lui qui rendra compte au peuple comme donc su xoolee ba gis ne kii moo ko doy ci loolu les choix ne se discutent pas kooku lay tànn jël ko teg ko te dañ koy accompagner je peux concevoir comprendre nag parfois nit dina juum mais su juumee ñun on est là pour dénoncer ñun dañuy fustiger le mal qui se trouve dans le parti est-ce comprendre nga tey jii la plupart la majeure partie des nominés certes peut-être seen agenda diis na mais il n'est pas et quand je parle du pas peuple mais mooy ñi responsable yi nga xamante ne ñoom ñoo tey ndaw ñi ndaw ñi tey ndaw ñaa ngi liggéey pas plus tard que bërki démb dégg nga benn ministre boo xamante ne lancé na fi à Louga dix mille emplois le président ñaata emploi la def ci ndaw ñi il en a fait il en a énormément fait fait autant pour moi euh, son premier mandat ñaata emploi la dugal Sénégal plus de cinq cent mille emplois <laughs> ba léegi coow laa ngi emploi mais c'est parce que on est dans un pays boo xamante ni nit ñi nanguwuñu jàng xam nga tey soo demee bay laaj en tant que ndaw nga taxaw ngay wax ne noo président defaluma dara defaluma dara mais tey en tant que citoyen yow ndaw war nga toog nga xalaat qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays que je dois faire pour mon mais jàngoo amoo diplôme amoo amoo amoo palto amoo place xamoo dara nga bëgg ñu ne woy aw aw ma xëy aw ma xëy mais kooku nan lañ koy dimbalee Pourtant, le président a mis des dispositions pour la, à, euh, des dispositions pour mettre dans de bonnes conditions cette jeunesse-là. Mais il y a l'ONFP qui est là. Il a la 3FPT qui est là. Mais nañ dem former wu ji l'une ñun ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey sax ñu ngi jàng man pas plus tard que bërki dem 3FPT may na ma bourse dama war a jàngi kon donc na ni ñi dem jàngi am ay métier xam ne li ñuy def ce que le président est en train de faire il le fait pas pour sa personne Macky Sall tey su wàccoon dootul fay abadan ndax jaar nga fu ne ba nekk le président de la république kon tey li muy def c'est pour le Sénégal c'est pour la génération future il faut que les gens se conscientisent un peu xam fan la Macky Sall jëlee réew mi parce que nag metti na trop ah metti woon na trop on se rappelle du temps de de de de de de Wade metti woon na trop c'était encore pire kon tey su defee ay jéego il faut le reconnaître maintenant je peux comprendre que ni ñu ne doyul mais même États-Unis bi nga xamante ne c'est la première puissance économique mondiale taux de chômage baa ngi fa la France noonu l'Allemagne noonu et cetera et cetera kon donc réew noonu lay doxee kenn day def dara keneen ñëw def dara et quoi qu'on puisse dire tey on peut pas blâmer le président parce qu'il a pas fait au contraire il a beaucoup fait et c'est d'ailleurs même l'occasion de le féliciter de le remercier en tant que jeunesse en tant que jeune autant pour moi républicain euh, si li nga xamante ne moom la defal jeunes yi. ci émission Mm-hmm. parce que ñëpp liñ doon xaar Abdoulaye Daouda da coow lu bëri na. mais bon day dégg nee na dafay dégg ndigalu kilifa nee na ajani ko ñu nangul ko ko euh, ñu ngi jëm ci élection locale. Mm-hmm. Euh, Pape seen tiraillement yi risqué yoon nañ perte élection locale yi gis nañ APR démb xam nga saagante yi xasante yi Moussa Sow mal dégâts kii ni kii xam nga avec euh, te ñu war a jëm ci élection locale est-ce que c'est pas risqué pour vous. risqué non parce que nag mooy comme lu ñuy wax l'APR même si c'est cinquante sept pour cent de l'électorat du Sénégal mhm. euh, les Sénégalais sont conscients de l'enjeu et pour man l'APR aujourd'hui est conscient même de l'enjeu Moussa Sow c'est le choix du président je vais pas être là à le blâmer wala à le juger président moo ko tànn moo ko fal ci kaw ndaw jeunes yi mhm. euh, mi ngi def liggéeyam ou pas ce sera au président d'en juger côté boobu duma ci sori parce que man j'ai cheminé dans la cogère ak Thérèse Faye bi ñu demee ba wàcc ñu xam ne aussi tey âgé nañ on a plus de trent cinq ans on a préféré céder nos places suñu rakk yi nekk fi tey donc euh, man je suis très mal placé pour wax si lu jëm si Moussa Moussa c'est un camarade de parti que je félicite que j'encourage di ko conseiller mu gën a yokk liggéeyam ci li nga xamante ne moom la président di def euh, parce que nag samay frère ñoo ko wër ay ñoom Moustapha Ba gars yi c'est des yoo xamante ne mooy loolu mais quel que soit alpha man si li ma koy conseillé mooy na woowaat ndaw ñëpp mu xam ne moom moo leen jiite ñi nga xamante ne am na ak ñoom divergence mu waxtaan ak ñoom xam ne moment bi nii nii nii du ma sàmba du ma demba on va vers des élections locales et ces échéances la moom mooy définir avenir parti bi ëllëg euh, su ma jógee ci loolu damay ñëwaat un peu euh, dans la paix la paix de manière générale. Euh, Alioune. li mu la waxoon sànq laa lay waxat gis nga APR mën nañ coow mën nañ wax mën nañ def lu nekk parce que loolu parti moo mel noonu hmm. les ambitions sont là <coughs> la fougue est là normal mu demee noonu hmm. mais tey jii bis bu ñu demee ba nga xamante ne essentiel bi jog na ñëpp teg seen i yiite topp ci li nga xamante ne moom mooy essentiel bi hmm. pas plus tard que hier j'ai rencontré des jeunes yi nga xamante ni ñu ngi àjji de Thiaroye Kaw mhm. on a discuté sur pas mal de choses d'ailleurs benn boy bi li mu wax nee na ma David ma ne ko waaw mu ma euh, dinaa liggéey liggéey bu am solo si inscription yi nii mhm. c'est un petit frère c'est un jeune frère euh, mën naa wax nijaayam la mën naa wax magam la son nom Pape Faye c'est un jeune talentueux moom ak ay ñoom Papa Ndiaye ñoom Pape Mor booy ñu ngi commencé recenser nit ñi di leen sensibiliser. Hmm. si li nga xamante ne noonu la ñu war a demee vers les élections. Hmm. et loolu dañ koy saluer aussi le coordonnateur Mamadou Diop parce que quoi qu'on puisse dire dajale. Hmm. dinaa ñëw sa ndaw ñi. dinaa ñëw sa commune bu yàkkamti. <laughs> ci de caaree ko parce que y a des questions dinaa ñëw sa commune. commune moo raw tas ci de caaree kaw. na personne déclaré nañ seen candidat bu ñu ci foofu élection présidentielle yi di ñëw. Mm-hmm. yéen a jël Pikine département rek Pikine avec cinquante et un pour cent. pour cent tout à fait. mais yéen Macky faale wu leen yéen baax sax mënu leen ko am. Euh, je dirais pas. Macky Sall faale wu lune waxtaan. lune voilà. Macky Sall. il a fait à Djidda. il faut qu'on ose le dire. non je parle mais xam nga xam nga tey. balaa ngay wax poste xam nga post tey jii waaw baal ma tuuti ma ne. xam nga tey lu tax ñuy dem vers les réalisations. waaw parce que am na dëkk yoo xamante ne nommé na fa ay nit. mais defu fa réalisation mais est-ce que nit ñooñu ñu ngi def réalisation ci biir dëkk boobu moo tax ma ne la tey jii su la li yàlla li olof di wax rek yàlla su la xañee dimanche baaxee la samedi c'est ce que le président a fait te ñun sax xañuñu ah donte nag ñu ngi ñaan mu yokkal ñu xañuñu de. parce que tey on a un madame Sophie Ndiaye Sissoko qui est représentée qui membre de FD Sud on a un Omar saw qui est PCA on a on a des Bawar c'est des cadres. de Ousmane Ndoye c'est des gens qui malgré que président jox leen dara mais qui se sacrifient pour le parti y a président Arouna Dia qui est là fait tout pour Djidah Thiaroye Kaw Lim Diagne yow xam nga li ma lay wax à pareille période Djidah Thiaroye Kaw kenn du nelaw école yi dañuy yàkkamti mu tëj tey on parle plus de mbënd à Djidah Thiaroye Kaw donc loolu nañ ko reconnaître le président Macky Sall même su ñaan nañu yàlla tey suba y a des cadres qui sont dans la commune en l'occurrence le président Modou Gueye tey président mën na ko dénk direction suba wala mu dénk ko leneen ak leneen on sait jamais y a d'autres cadres jeunes qui sont là les Bawaar bi ma la doon wax les Alsan Ndongo bëri na bëri na les Mamadou Yaya mais y a des gens qui sont là Hamidou Ndaw ci à la RTP c'est des gens yoo xamante ne c'est des cadres qui font tout pour leur commune suba ñaan nañ yàlla ñu am ay nomination man je m'exclus est-ce que comprendre donc pour dire que ne le président même su dee joxuñu yenn poste ministère joxuñu post direction te am nañ yaakaar ne nag mi ngi ñëwaat ah. parce que président fàttewul jidda depuis boobu ba léegi chaque jour ngeen ngeen am nañ yaakaar. xam nga lu tax ñu yaakaar parce que tout simplement su dee dañu fàttali le président en 2010 keroog bi muy taxaw bayaalu màgg daal fii la ko defee. kon kooku lu mu metti metti metti metti tey mënul fàtte jidda caaray kaw. ans xaw ma eh, su dee après 20 ans. même su dee Djidda bokk nañ ci ñi ko fal Djidda n'est pas le Sénégal tey on parle de l'équité le président est en train de faire tout ce qu'il y a à Dakar dans les différentes régions aussi bu ñu il faut pas que qu'on soit égoïste il faut pas qu'on soit égoïste certes je suis de Djidda Thiaroye Kao su doon sama sago lu ñu jaay yow sax président tey jox la ndombal tànk léegi élection locale yi avec élection locale yéen ak seen tasaaroo bi ñoom ñi nga fi wax ñu ñu bëri déclaré nañ seen candidature que seen tasaaroo bi ci bi jaaree nii benn est-ce que le maire libéral du du ñëwaat jël affaire seen kaw. Euh, man je suis convaincu. Hmm. je suis convaincu et j'ai un esprit kit euh, que ne suba su commune bi waree taxaw. chacun est libre de faire de dire que ne je suis candidat. Hmm. man moom j'ai pas d'ambition je veux pas être maire pour le moment mais dama la ne. Hmm. fii ku nekk am nga droit sam sa ndënd. mais suñ demee ba càppaandaw ga ce sera au président de choisir te ki muy tànn pour l'intérêt de Djidah Thiaroye Kaw dinañ toog si ginnaaw ñun waa Djidah Thiaroye Kaw. ku mënti tànn occasion ak ku mënti doon même na ci benn même dans. ak non man je le man ah. ak samay njot waaw ah. di le dis haut et hmm. euh, def na ne on a un coordonnateur qui moom ma Diop qui est là. Hmm. ñu ngi topp ci ginnaawam ñu ngi liggéey ak moom. Hmm. yàlla def na ne ona a une maman Sophie Ndiaye Cissokho qui est là. responsable des femmes. ñu ngi topp seen ginnaaw ñu ngi liggéey hmm. d'ailleurs pas plus tard que démb yënga suñu réunion bi ñu def à Jidda donc pour te dire que ne commencé nañ toog waxtaan xool élection yi fan la ñuy jëm maintenant ce sera au président de définir un choix président si ku mu jël je te dis de toi à mois on sensibilisera Jidda tout Jidda sera debout comme un seul homme ànd ak kooku dem jëli mairie bi si Cheikh Dieng duñ dese bëriwul dañuy ñëw ci question intermédiaire yi parce que moo tax ñuy def laaj. y' a pas de souci. da nga bëgg a dugg ci station Cheikh Dieng bon noo ko gisee en deux minutes. Euh, la gestion du maire actuel. non nébuleuse nébuleuse. parce que mm. très sérieusement man je peux pas concevoir un maire de commune soo génnoon léegi nga def micro trottoir. jidde fii ay numaan 3 Lansar kenn xamul maire kenn mosu ko gis. mosu fi teg kànk. bon bu ñëw ci question yi. Xarim Fall. la plupart des ministres étrangers du régime c'est des complexes Khalifa APR la boobu. mais la il a raison hein il a raison. Ah. parce que complexe pour man weesuwul. nga dem di dimbali koo xamante ne oppos opposition la bokk nga fàtte ki nga xamante ne moom moo fal ki la tànn fal la. Mhm. donc loolu c'est c'est pour man soit c'est complexe la wala c'est de l'hypocrisie excusez-moi du terme wala bon en fait je peux même pas le qualifier loolu moom je suis parfaitement d'accord avec lui. Dame Ndiaye. Mhm. ñoom ku leen di yàq lu bon rek la ñuy recevoir les ministres et les DG. Euh, waaw mais côté boobu man ku ma xam lu xam ne euh, bi may doog a ci parti bi bu ñu commencé même li ma xamante ne dama ko gëmoon dama ko daan bind sama Facebook. Mm. te ba léegi j'ai pas arrêté. Mm. su ma gisee dara lu ma naxari ci parti bi su ma yuuxoo kenn déggu ma ma jël sama Facebook parce que kenn moomu ma. Mm. dara tënku ma itam. je respecte la discipline de parti mais parfois aussi il faut que ñu yuuxu pour ñu dégg ñu loolu kese la li mu wax aussi je suis entièrement d'accord avec lui mm-hmm. euh, bi jàlloon nee na ADD ministre Abdoulaye Daouda Diallo il se prend comme un roi bon peut-être moom gis-gisam la mais liñ ko mën a xamal mooy fi personne n'est intouchable personne muy Abdoulaye Daouda Diallo muy non on a ministre Omar Youm tey animaux Mm-hmm. on a vu euh, mon ami mon frère le ministre Amadou Ba tey animu mm-hmm. doo wax ne compétence lañ leen jëlee fa ñu nekkoon parce qu'il faisait d'excellent travail mm-hmm. mais c'est parce que peut-être choix bi moo jógee ci ñooñu dem ci keneen te loolu dañ koy nangul le président cela ne veut pas dire que ils sont ils sont ils sont mauvais mais pour rappel muy Ablaye Daouda Diallo wala muy keneen kuy def loolu personne n'est indispensable et le président est au courant de tout man su ma la ko waxee war nga ma gëm parce que sant bi may dugg si gis nga appel bi ma recevoir le président il est conscient de tout il est au courant de tout ce qui se passe dans le parti peut-être le moment opportun il prendra ses décisions. yàlla na ne ku sa candidat ku sama. candidat ak sama jënd caaray kaw ki président di tànn lay jàppale. waaw ah, dégg nga ko mooy yeneen am na ay message d'encouragement la comme Bass Diakhaté bi par mu nee na ci xeex bi tàmbali na. Mhm. APR mhm. nee na yàlla Lamine Camara waa mes quand on communique du ñu yee si ngoom bon yéen a dul question c'est des frères bon Daara looy tàggatoo. c'est des frères. c'est des frères de parti que je salue au passage. di saluer aussi sama famille bi nga xamante ne moom laa bokk. parce que nag dara umpale woon ne bi ñu jógee Cogère. il nous fallait créer quelque chose. donc euh, on est passé par pas mal de chemin mhm. yàlla def tey ñu dem ba taxawal li nga xamante ne moom mooy GIR le groupe d'information gouvernementale mhm. euh, di défendre le président sur les réseaux sociaux mhm. donc occasion la aussi tamit parce que tey suñu demee ba am sañ-sañ bi ba am yenn kattan yi sax mën nañu wax ni GIR moo ñu porté le président moo ñu jàppale ba ñu agsi fii occasion la ma nuyu waa GIR di nuyu sama confrère yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk en l'occurrence mu Mbeng Pape Ndéri Fall Zahra Gadio Aly Ngouille Sarr euh, Mbaye Sène le futur maire de Thiaroye euh, ku lim juum su ma limee tem-tem kii. nga nuyu Alex nga ñu doon Sénégal di nuyu di nuyu di ah. nuyu aussi suñu suñu suñu suñu suñu kilifa. pourtant ngeen jël di yónnee nit ay cinquante mille ay booy nekk fa ngeen leen di ay booy nekk fa ngeen leen jox vingt mille ngeen yónnee koo xam ne il paraît que du publier cinquante. bon <laughs> dinaa dinaa tontu ci loolu. léegi waaw parce que dañ ko publier ñëpp gis ko. mooy euh, commenté suñu suñu grand frère. Euh, Mame Boye Diao. Euh, nga xam ne tànkal tànkam benn yoon jur. ak moom ak moroomu DG yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk. di nuyu sama kilifa bopp Cheikh Ahmed Tidiane Ba. nga xam ne moom mooy sama parrain. kooku rek dafa doy ci financé ma man parce que xaarul ma laaj ko dara. day ñëw sama kër day saafonteeg sama yaay day def yeneen ak yeneen ak yeneen. kon donc occasion yi ne suñ ko amee dañ ciy kii mais pour diir que ne Alex c'est un frère c'est un camarade de parti à qui je voue une confiance euh, mu nekk ndaw boo xamante ne dafa gëm boppam day liggéey yàlla def na ne dafa nekkoon biir GIR am ay mal malentendu yu amoon man personnellement man maa ko génnee biir GIR peut-être yàlla def na ne boo wax léegi toogu ju waxtaan mais ku liggéey ba agsi foofu noonu président jàppale ñu pour ñu jàppale ndaw ñi donc suñuy séddale dañ koy sédd parce que lu mu métti métti def na jaloore biir giir jaar na fi def na fi lu rafet donc dañ koy sédd maintenant libre à lui moom mu jàpp ne peut-être moom il mérite pas ça mu delloowaat ko loolu c'est son choix peut-être am na fu mu ko teg te duñ ko ci blâmer mais li wér mooy ñun on a fait notre devoir mooy que ne amuñu xaj ak seen ci kenn képp koo xamante ne ndawu président Macky Sall nga à à dans le compte du GIR pour l'intérêt du parti, mais pour l'intérêt du président de la République en général. Voilà. Bah, nous remercier. Je remercie aussi Lundiagne. Mhm. Euh, di remercier aussi sama waa kër sama famille parce que nag dañu sonn xam nga man damaa xaw a bëri noonu. Mhm. Euh, parce que lu ma gëm laay wax lii dëgg laay wax xaaruma kenn ci lenn di nuyu aussi sama frère yi nga xamante ne ñoom ñoo fi toog sama waa quartier sama sama militant yi. ah di nuyu waa jiite caaroy kaw yëpp di jël nuyoo bi di ko teg si le coordonnateur xam nga mu séddale ko ñëpp en tout cas aussi tamit occasion pour ñun di le féliciter parce que aussi tamit en direct de Pikine fierté la pour ñun les Pikinois mm-hmm. très sincèrement il faut que ñu wax ko tey bëri na ñoo xamante ne suñu bëggee xam li xew Pikine si site bi ñuy dem duggi kon donc tey suñu amee occasion bi aussi dañ la ci féliciter di jox rendez-vous nit ñi Alioune euh, am yoo xamante ni ñu ci bëgguñu ci su xuus parce que nag euh, mooy li ma la wax sànq rek ay kilifa suñu ñaanee dañ leen may mais am na lu ñuy waaj parce que am na lu ñu wax il faut ñu toog waxtaan conférence d'arrondissement gis un les angles suñ ko defulee ñun dinañ jël suñuy responsabilité parce que nag tey je la en tant que porte-parole en tant que porte-parole de la commune mais suba commune bi ñooy jël seeni responsabilité ñoom ñooy taxaw waxal seen bopp donc maa ngi sant encore une fois de plus sénégalais yi di sant ñëpp di leen gërëm di wax ni itam su dee kàddu yi dëng na rek ñu xam ne li ñuy wax dañ koy wax ak kër parce que suñu président daf ñu defal loo xamante ne dañ koy yéene ndam te ndamam mooy ndamu Sénégal euh, di lancer waat un message aussi si Covid bi parce que bi nga ñëwee léegi laa tekki sama masque euh, réew mi jaxasoo na Alioune hmm. nit ñi ñu ngi dem comme pas possible sànq rek bi ngay dugg si man tàgge nañ ma ñaar. ñoo xamante ni Covid bi moo leen rey na nit ñi gën a waa dem pikiru ji takk seeni masque tey raxas seeni loxo muy seeni jàmm di seen jàmmi kër di jàmmi waa Sénégal maa ngi leen di sant di leen gërëm. jàmm.